asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci wenn waxtaan wu gàtt rek jëm ci diine ji ñu bokk tey nag ñu bëgg a fàttalikee fàttalinte ak yéen li war a doon taxawaayu doomu aadama ci kaw suuf wayjur woowu tax ñu ñuy tudde ay doomi aadama bi ko suñu borom bindee bind soxnaam da ko teral teraanga ju toll naka wax mbindeef yi nga ñoom ñoo fa nekkoon muy malaayika yi ne leen su jootal leen jëm ji loolu lépp tedd nga la am koo xam ne kii dafa lànkoon ca jooja jamono ne du sujjóot muy iblis suñu boroom woon ko ne ko ñàkk sujjóot gi ñàkk wee ndigal la akuk rëy kon nag danaa la toroxal wàccal génnal ci àjjana ji yow nga dem loola mu lañ ci ko ci lexam di jëm ay pexe di jéem ay pexe ba ib aadama ak soxnaam soosa ñu boole leen ñoom itam génnee pexe ya mooy suñu borom am na lu mu leen tere woon ne leen bu leen ko lekk mu nax leen ne leen lii ñu leen di tere ngeen di lekk kat mooy boo ko lekkee da ngay dal di am nguur goo xam ne gii du du du dakk danga am nguur goo xam ne gii dakk da am itamit dund goo xam ne gii du am fu muy yem ba mu leen ko waxee nax leen fa daleehuma bi xuróorin la ñu wax suñu borom a ko wax ci alquran nee na waatal na leen sax boole ca ne leen ma man dama leen di laaye biir rek su ngeen ma déggee loola mujjewul lu dul ñu lekk garab ga génn ci àjjana ja wàcc ci suuf tàmbalee ay coono loola mooy coono yii ñuy jànkonteel nii iblis mooma la mu namoon mooy yàlla toppe na koom rëbbam àddina ak alaxira bés boo xamee ne day dugg safara ëllëg mu am ñu ko fa wéttali ñoo xam ne ñi dañuy bokk ci njabootu aadama jooju loolu ba mu ko décidé suñu boroom xamal ko ne ko dana am ñoo xam ne ñoom foo mu noo mën a def ñu mu ci ca te doo leen mënal dara inna ibaadi laysa laka alayhim sultaan loola di wéy mu am iblis di liggéey di yàq yàlla di yónni ay yonent ñuy gindi ay nit iblis di yàq yàlla di yónni ay yonent ñuy gindi ay nit ba ci muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi fi yonent bi jógee tamit mm, yonent amaatul ginnaawam yàlla teewul mu wàcce ay borom xam-xam yuy gindi nit ñi di leen teg ci yoon ngir ñu bañ a tàbbi ci loxo iblis moomu ñooñu nga xam ne ñoom lañuy ñuy lim ñenn ñi dañoo faroo bind ñenn ña faroo wax ñenn ña faroo dund gu rafet goo xam ne gi day doon misaal doon exemple ci ñañu jamonoon teel loolu Sénégal gi am na ci ay misaal yu bare ñoo xam ne ñii boobu taxawaay lañu taxaw ci wàllu diine ji ak ci wàllu ngor gi nga xam ni seen jëmm ya boo leen gisee lim lay jëkkati fàttali mooy yàlla seen jëmm ya boo demee ci seen kër seen dundin wa yàlla la lay fàttali bu ñu waxee nag la ñu wax day jeexital ci sa xol ay fan wala ay ayu bës nga xam ni dañ lay dundal ñooñu ñooy jeexitalu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iblis it nag ami jeexitalam ay nit ñoo xam ne ñii dañuy mbubboo diine waaye ku leen gis te xam luy nitu yàlla danga xam ne ñooñu sori nañoo nit nitu yàlla boo duggee ci seen kër ya day nuroog ay palais wala mel na kuy imiter àjjana loolu tubaab di wax un luxe insolent seen jëmm yi boo ko xoolee da nga xam ne moos wuute nag jëmmi ñooña nga xam ne ñoo doon liggéey lislaam koo ci gis ma nga ne sabb yar biiram yari lexam ak yeneen yu ñu xam ni day màndargaal kuy dund ci dund gu na tax bëgg àddina nag ndax xam naa moos doomu aadama am waruwaay bu baax ci jamono ji ñu toll waaye dajale ci fukk xam naa moos doomu aadama wut kër gu baax dëkki ko waaye def ca luxe boo xam ne bii superflu la ñu ne déete nga am nag dëkk bu dem nga am fa kër xam nañu moos doomu aadama di dund dund kuy dund waaye am na benn boo xam ne boo ca àggee nguur la gën a jege waaye nu rootul nag kuy woote ci yàlla di ci dund nooy bopp nag weesuwul fekk ku mel noonu gisoo ci moom lenn lu lay dundal luy suuxat sa xol di la yóbbu ci at ci yàlla saa yoo ko gisee gën a bëgg àddina saa yoo ko gisee gën a bëgg oto bu rafet saa yu toogeeg yow wax ak yow won la lu lay gën a jegeleloo àddina te du la jegeleloo sa boroom boo demee ci seen kër ya ku ñëw di laaj kooku moom yaakaar naa ne du sax am bunt moom faf ku ñëw di joxe tuuti kooku moom yaakaar naa ne moom it du yomb ci moom woyof mbubb déedéet foofu foofu du place loolu moo xew ci kër ñenn ña bokk ma ñëpp waaye ñi ci bari noonu lañuy dunde jot ci ñoom danga nga yor lu leen lu ñuy mën a jot lu leen amal njëriñ rek lu ko mooy dana am ñu ay ponkal yu dox sa digganteeg moom nan la daa def lii daa def laa jàpp jàppandiwul ak day dal loog nangam nangam foofa nga toog di ko xaar waaye dana la fa romb ba tàyyi ñu nga gis ko mu dugg génn nga xam xel na kii gisee naag moom te lii may wax de yaakaar naa ne ku dem ci ba yooyu xeeti ëtt danga ko gis loolu nag lu ci yàlla faaw ñu delluwaat nag jaam ñi nga xam ni ñoom la yàlla teg ci loxo yi seeni moroomi jaam ngir ñu gindi leen ngir ñu jubbanti leen ngir ñu teg leen ci yoon wa ñu delloo leen yàlla mi nga xam ni moom moo leen moom kon jaam ñi li leen war mooy ñoom it ñu yeewu xool màndarga yi nga xam ne yii ñooy màndarga yi nit kuy woote yàlla ban zahir la war a am ban melokaan la war a am ndax dalaa war a gën a bëgg àddina ndax dalaa war a gën a bëgg puukare ndax dalaa gën a rëy ndax dalaa gën a lan la lay jaay lu weesu xam-xam lan la la war a jaay lu weesu ragal yàlla gën laa ragal yàlla lu ko mooy gëmal ne kooko kan ca kuréelu seytaane bala bokk rawatina nag ñi nga xam ne ñi dañ naan la lii xaraamul lii dagan la diine ji dañ koo teengal ñoo ñoo yéesati ñoom ndax dañuy dikk di la woyofalal ci diine loo xam ne lii demul bay woyof di la ñàkkal solo ci diine loo xam ne ñàkkul solo fekk loo xam ne lii lu xaraam la ñu bëgg la koo daganalal fekk nag ci biir diine ji lu rëy lu lu am maana ñu bëgg koo delloo ginnaaw nga nooy bopp topp ci seen ginnaaw ñu wommat la ba tàbbal la ci biir pax moo xam ni mii soo fa yàggee da nga fa wéet ndax doo fa bari ay moroom ko defee nag mbokk yi nañu bàyyi xel ci loolu asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu